نجا بما يدركم غير سدتي ونستعين بالقران مدتي نجا بما يدركم غير سدتي ونستعين بالقران مدتي نجا بما يدركم غير سدتي ونستعين بالقران مدتي نجا بما Mbacke yàgg fi te wér Mbacke. Mbacke yàlla nga fi yàgg. yàgg fi loolu te wér Mbacke. bu aajoo jël suñuy fan jox la Mbàkke yàgg fi. est-ce que Mbàkke est-ce que